bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru bamsasin junnatun màggalub Touba 2023 Leral TV leeral FM ak Leral point net fas yéene ànd ci ak yéen gunge leen lu ko dalee benn fan ci werub safar ba bésub màggal groupe leeral Média dugg ak yéen ci xolu tuuba ak mbooleem fu ñuy màggale ak fàttaliku liggéey bi Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba xadimul Khadim def ci yoonu géej gi leeral FM Leral TV Leral point net fas yéene dikk ak yéen ci ay reportage ay plateaux spéciaux ak lépp lu màggal gi laaj premier safar ba màggalu tuuba groupe leeral ànd ak yéen ci santale Serigne Touba sunu borom leeral ak yéen Ila Touba rek